coordinatrice nationale de la commission féminine de la COJECAR ma fas yéene nag tey waxtaan ak yéen ci contexte bii ñu nekk tey nga xam ne mooy waajal campagne yi gis ay nit ñoo xam ne dañu malheureusement ay nit ñu doy waar ñu jubal ñoo xam ne vraiment jeunes yi pour en faire des chairs à cadeaux di jël ay di leen yóbbu di leen xeexloo comme ni ma tàmm di koy waxee bàyyi seen njaboot ci kër ga ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg luy jot dafa jot ginnaaw dee ñun waa COJECAR rawatina nag jigéeni COJECAR taxaw nañ pour xeex mbir nangu mukk ñu def leen l'agneau du sacrifice d'une opposition boo xam ne dañu nekk en panne d'inspiration nekk ay incapables député Ba la doon di ñun nay xam nañ fu mu jógee moom santam jógee ko bàyyi nañ ko xelam nag xalaat lii ma wax moom mooy lan moo tax man mii nga xam ne ñu ma tàgg ci kaw yi ma dirigé jigéen yi kocekaar yi ma tudd nag Ndeye Yacine Sène maa ngi dénoncé vigoureusement